Yow naa

alors mesdames et messieurs je suis en face avec Rema Diop une voix très belle moom laa jàkkaarloo nii moom nag moo ñëw jël sànq ana trophée bi. boo ko génne. Ah, c'est chaud meilleure révélation lii laa doon aaye mais jëlaat nga ko. non bàyyi ma jëlee rek c'est c'est vraiment un plaisir pour moi euh, d'avoir été nominée et euh, d'avoir gagné cette catégorie c'est c'est c'est c'est vraiment une fierté. et puis c'est mérité quoi jëloon nga ko raay ëwët ñëwaat ci only woon woon bi jëlaat ko. waaw waaw waaw lii yëpp sénégalais rek vraiment ñoo ñoo ñoo ci taxaw ñoo voté ñoo ñoo envoyé ay messages vraiment c'est un plaisir di leen remercier. pare nañ si. jeex na jeex na jeex na confirmation bi la ñuy dem. récemment aussi gis nañ nga initier lu bees am orchestre waxoon nañ ko ci plateau bi orchestre boo xam ne mi ngi tudd Ngalam ngay yëngatu ci ay affaire de live tu l'as fait da nga ko yéex def mais commencé nga ko di def lan ah lan la ñuy xaar. waaw dañ ko defee rek tàmbali nañ ko ak ay euh, plateau yu bëri yoo xam ne ñu ciy def live et tout donc euh, c'est c'est juste le début ak orchestre Ngalam incha allah ñu ngi avancer incha allah. donc ñu gis ni yaa ngi def sa formation yaa ngi jàng yaa ngi ba pare yaa ngi woy en même temps di prouver di prouver si woy bi donc ñu bëri ñu doon ne jàng am na jàng boo xam ne ne mënoo ko boole étude yow lan ngay wax ñooñu. waaw déjà je dis que yombul. yombul nga boole jàng étude ak euh, way surtout ngay def étude en génie civil donc c'est pas évident mais li ma koy faral di waxee rek c'est une d'organisation il faut savoir se tracer un tableau de priorisation xam priorité xam nécessité ak jàppale parce que la famille elle compte aussi ñoom ñi nekk sama ginnaaw di ma jàppale macha allah ñoom ñoo tax ma agsi fii nii di wax gars yi que ne c'est possible nañ góorgóorlu rek incha allah. Bon, je dédie ça à ma maman, à ma famille, à mon staff et tous les Sénégalais parce que lépp ñoom la vraiment. ah ñoo ngi ci ni non nii nii nii leen wax dara mais incha allah très bientôt. vraiment est ah, ñoo baax rek euh, ñoo baax de ce lépp lu ñu gis lu baax rek dañ ma ciy bëgg a gis vraiment di wax ne projet effort bi euh, j'étais pas au courant mais di nekk initiative bu ma bu ma bu ma saluer initiative bu nga xam ne ne naw naa ñu ko organiser aussi je félicite ñi nga xam ne ñoo ci participer parce que ñu tànn la nga nekk jigéen représenter euh, li Sénégal taxaw pour taxaw pour xeex tout ce qui est violence faite aux femmes vraiment c'est une initiative que je salue merci beaucoup. ak waa sama yaay ak ak jaañ ak ñëpp yéen ñi ñoom Mina Xataab ñëpp ñëpp ñu bàyyi ma kenn xëy moom merci beaucoup. merci. Euh, ginnaaw bi ñu la félicité jël nañ la sànq ci biir mais dañoo bëgg nga wax ñu sa diggante Coumba Gawlo parce que récemment dem nga fa nga jàkkaarloog ak moom nga woy woy woo xam ne réew mi yëpp daa seen xol. waaw déjà loolu moom contentement laa ci am rek parce que nga jàkkaarloog sa idol woy mu mu mu mu apprécier macha allah un plaisir di wax sa famille aussi bon nombre de personnes m'ont contacté et vraiment je les remercie. ngalana ni walo yeah jilaay jilli ci ngalanka amaat moola usmaan siiba te samala gañu leen duru bi jaayul ngur wurus la yib nu doole ñi wale ba ku jeng dootul mën a dem ee eh, nani jëriñ ala nani waalo yee soose may di baawa. yal na la yàlla sàmm. allahu amin mais macha allah. bëriwul sa génération ñu koy def. un paroles yi doo ko mën a téye intonation yi doo ko mën a téye euh, octave bi nga yéegee doo ko mën lan mooy secret vraiment. nee naa la damaa woy maringun yaaram baay maringun yaaram baay oo oh, maringun yaaram baay ma joojo buri kumba ma yande maringone aramba yilu wule yalo ya ibaje oyelo yobe ya merci de mamu luma eh, wax mundi du maju rema job sama sët bi da nga way mbar way mbëpp way njoli way mbëf re eh, waaw waaw rema job way ngaay déglu mag ñi di déglu mag ñi di leen topp et euh, macha allah daal te benn amuñu benn euh, kii laay déglu xale la wala kii laay déglu mag la képp ki nga génération bu ci nekk dañ koy déglu que ça soit ma bokkal génération comme ñu ma mag que ça soit des sénégalais comme des gens de l'extérieur donc gëm naa ne force de forger qu'on forgeron dañ koo liggéey ci déglu. déjà lii c'est pas la seule chanson mag boo xam ne ne maa ngi koy way nag woyu mag peut-être mën naa wax ne ne lu ci bari ci mag ñi laa jàngee donc mag ñi laay déglu woy bi aussi su ma ko woyee ñi ñi dañ may laaj sax yow ban âge nga am c'est vrai que xale laa woy bi judduwuma wala samay mag sax woy bi ñoo ko mag mais li may wax rek dama ko bëgg en plus j'aime les mélodies je suis une amoureuse des mélodies donc woy bu am mélodie rek dama lay jàpp. ngir yàlla may ma Cheikh Fall léegi lu may fukki dërëm yor bu ñu ñibbee Tëngéej ma teral ñibbil sa kër ba ngërëm nga doon ñibbi sa kër baay ngërëm nga doon ñaan am nga ko abu dardaarey eh, bukki wulak may sa biigi kumba faal moom mi ñu booleeg faraxa ci ka gañeel jabay mam say njaay moo ñëkk a joxe adiya ki leer leeri leer leeri leer Cheikh leer leer maam Cheikh Fall maa lay tey ma bàkk lay xiin wàccal demal daagul ci biir unge la may fa soo wéylee si France ma may la léegi terrain ak oto